الحمد لله ذي الإكرام والحسم على الحبيب وأولياء في الحكم ثم أصلي على محمد سيدي والآل والصحب وصالح الأمم mbokki jullit yi mbokki taalibe yi yéen ñi seetaan seen Darmanko Darmanko FM ak Darmanko TV réew mi ak bitim réew ñoo di nuyu di leen ziara te jiite ñooy Isaay nag xalifa général des mourides di ko ñaanal fan wu gudd a wér waaye noonu di ko ñaanal xalifa maam Cheikh Issa Diène noonu lañ ko ñaanal xalifa sunu xalifa xalifa maam Cheikh daan ngañ tànn bi yàlla yàggal ko fi ak mboolem xalifa sunu yi ne ci réew mi yëpp bàyyiwuñ kenn wante di jël nuyoo ak ziara di ko teg ci sunu réalisateur mooy. Aji Mansour Mansour Diagne wante ak soxna Kine soxna Kine Niki Sa wante di ziar baax waa Darmanko bàyyiwuñ bàyyiwuñ kenn di foofu am nuyoo ak ziar di ko teg ci kenn ci kër gi muy suñ Mbàkke suñ Mbàkke Juuf oustaz suñ Mbàkke Juuf ci tafsir yu am solo yi muy jàllale ak waxtaan ndénkaane yi ñu Neubach. su ko defee rek seen émission bi ngeen baaxoo am muy albayaan di ànd ak seen mbokk Oustaz Tandine xam naa tey rek incha allah li fas yéene waxtaane mooy nañ leen indil tafsir sootul al fatihatul kitab mooy sa saaru fatiha di lu am solo ñu fas ko yéene waxtaane su ko defee jariñante ci ndéem soom ne yàlla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 muy mm. sóotu alfatiha di saar woo xam ni moo moo ëpp ay commentaire ci wala bokk euh, yëpp ay wax ci borom xam-xam yi dañ ci wax di euh, saar woo xam ne wax nañu Màkka la wàcc am mi Medina la wàcc ku ci nekk rek indi na ko ay euh, ay tegtal kon saar mi ngi noonu kon nag moom bisimilahi rahmaani rahim maa ci wax loolu rek waaye sëñ bi indi na ci wax na ci ay ay musaa yoo xam ne dina ko maa def ah, ak ñeneen ñoo xam ne wax nañ ko ci soo ko defee mu nekk ay muslaay yoo xam ni yu baax a baax la moom it saar wi fatiha lépp ñaan la ñaan la lépp ñaan moo ci nekk kon euh, mooy jokk ci borom bi tabaaraka wa taala nga xam ni moom daa boole lépp fatiha moom daa boole lépp te tamit euh, boole gi boole lépp moo tax bu ñuy julli rek euh, ñu ko wax mu nekk farata ndax saaru gàtt la waaye daa ëmb ay maanaa yu baree bari yu am solo yoo xam ni moom lañ bëgg a seetantal su ko defee suñu jàngat wax leen ko loolu moo waral kon ñu ni li de kon ni ko war a ubbee julli ndax li ci nekk ci ay wax di ay ñaan kase mbokk yi jërë ngeen jëf su defee ni ko waxee rek ñu waxtaane saa di fatiha moom fatiha nag moo ci kaame bi ñu ko defaree mooy nekk ci bopp bi nga xam ni moom la ñuy ubbee donte am na ñuy wax ni ci toftalo bi mooy cinquième sourate bi waaye euh, moom daal moom lañu ubbee kaamil bi ngay jàng moom nag juróom ñaari aaya la am nañu juróom benn aaya la am ñu ni juróom juróomi aaya la la am ñu ni juróom ñaari aaya la euh, den ci ñëw ci leeral gi su ko defee moom moom la wàcc saar yi man nekk màkka la wàcc Euh, ba tey moom saar wi di fatiha mooy saar yi nga xam ni euh, moo ëpp ay commentaire wala bëri na ay commentaire maanaam ay wax yoo xam wax nañ ko ci bëri na ay wax lool ci ba xam-xam yi wax ju bëri nañ ko ca wax na ne ni fatiha saar wi bismillahi rahmaani rahim bokku ci alhamdu rek la commencé am ñu ni ci la bokk euh, ñu wax ni ci la bokk ak ñu wax ni euh, bokk ci ñu wax ni daa am ñu wax ni euh, bismillahi bismillahi rahmaani rahim kat Euh, moom dafa bi nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam jibril day ñëw wax nañ sax bis naa moo njëkk a wàcc moo njëkk a wàcc wax na am nañu wax loolu ni bi nga xamee ni yonent bi sallallahu alayhi wasallam jibril ñëwal na ko di ko jox euh, euh, saar yi di iqra ba mu ñëwee dañu ko xol ya Muhammad bismillah bismika al azim mooy bismillahi rahmaani rahim su ko defee euh, wax ko pare doog wax iqra bismi rabbika allazi xalaq su ko defee ñu am nañu wax loola euh, ba tey it xam ngeen ni bismillahi rahmaani rahim mooy li ñu tijjee ci euh, commencement booy ñaan wala nga jàng ña eh, ña sukk am na ñuy sukkandikoo ci daan ni eh, bismillah maaleem ci la daan ci la eh, yonent bi salaa salaam bu demee bu demee bu demee mel ne waa màkka wax na ni yonent bi salaa salaam mu leen bàyyi doon benn bataaxal ni leen bu ngeen di julleeti na ngeen ko na ngeen ko na ngeen koy wax wala bu ngeen tijji seen julli wala lu ngeen def rek na ngeen ci jiital bismillahi rahim kon ñoom ci leen sukkandiku moom waa maka ba tax na bu ñuy ñoom bismillahi rahmaani rahim ñoom das koy wax bu ñuy julli farata dañ ci boole bismillahi rahmaani rahim wante boo demee ci euh, Medina Medinatu Munawara ñoom bu ñuy julli duñu wax bismillahi rahmaani rahim ndax ñoom nee ni Aboubacar ak Omar Ousmane ak Ali ñoom nekk nañ ba jóge fii musuñu julli di wax bismillahi rahmaan rahim kon ñaari buto yooyu amu fi kon moo tax te ñoom ñoo ñoo nekkoon seen kilifa te yan daan rey kon loolu wax jooju wax nañ ko ci ci bismillahi rahmaan rahim ban di xew daal bismillahi rahmaan rahim moom am na ay njëriñ yu bëree bëri yu ci nekk sëñ bi euh, muslaay la te euh, sëñ bi na ni boo ko jàngee ñaar fukki yoon ak benn euh, ci guddi nee na ak léemaale boo xam ni di nga mucc ci say noon nga aaru kon am na njëriñ lool waaye mu nekk saar boo xam ni bu julli moom lañuy ubbee nga xam ni faatala ci julli góor gu nekk nga wax ko ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam ma ku julli na wax ko ku julli te waxoo ko soo julli baaxul amoo julli kon moo tax ñu koy wax ko waxaat ñu dégg faa dugg nañu wax kon alhamdu mu ni alhamdu mboolem xeeti cant wala ak cant lillahi aji ñeel yàlla la mu ni am na ñu koy firee ni alhamdulillahi am ñu koy firee ni mooy cant ki eh, nga xam ne borom bi tabaraka taala cant na ko sunu maam ibrahima salaam ca ismaila ak eh, doom ja ku jëfee ndigal doom ja sant doom ja nangu ja am na ñu ko fira noonu nga xam ni cant googa waaye am na ñu wax ni mooy cant ki nga xam ni da ngay ko sant yàlla bindeef mi wala jaam di ko sant euh, moroom jaamam waaw yooyu yëpp wax nañ ko ci wante daal euh, li gën a wér mooy loo xam ne boo ko waxee dooju mooy nga ni alhamdu mbooleem xeetu mbooleem lu xeetu cant rek lillahi aji ñeel yàlla la loolu ma gën a jub moo gën a fasaa rabbil alamina mooy borom awalim yi am nañu koy firee noonu alam nag dafa am alamul ins alamul jinn alami béy na kon rabbil alamina mooy borom euh, waaye nag boo bëggee prix mu jub mooy rabbil alamina da nga naan mooy bidam mooy mooy borom mbindeef yëpp mooy borom képp koy mbindaafoon rek mooy sa borom moom moo moom kon moom noonu moo gën a jub ci waxin rabbil alamina mooy borom lépp. arrahman turu borom bi la tabaraka wa taala mooy firi yërmande yërmande borom ta tabaraka wa taala yërmande yoo xam ne dafa dajale mbooleem ku julit ku dul julit moo tax ñuy wax aji yërmande àdduna arrahim mooy firi ba tey ak yërmande loo xam ni wala may goo xam ne da koy jagleel eh, way gëm yi te sellal denc leen ko ba ëllëg yamal xam fay leen ko kon ñooñ dong ñoo ko jagoo arrahim moo tax mu ni aji yërmande àllaaxira ci xéwalam yi ko neex mooy arrahim eh, maliki yawmi diin maliki mooy buur am na ñuy jàng euh, maliki am ñuy maliki waaye boo ci jàng rek boo ci jàng baax na ñaar yëpp ñoo bokk euh, li ñu tekki mooy buur bi tabaaraka kon mooy buur bisub euh, diine ba am ñu koy firee noonu euh, yow mi diin mooy yow ëllëg yamal xiyaam xam nga diine yi bëri na am na diine yahud diine nasaraan diine diine kon mooy euh, borom diine yi kon mooy buur am ñu koy firee ëllëg yamal xiyaam euh, mooy buur bis ba wante am na ñu koy firee mooy buur bisu fayakoon ba pengaham ni yauma la tamliku nafsun li nafsin shay'an wal amri masillah yam yafiru ma min akhihi wa ummi wa abi wa sahibati wa bani li kulli imrin minhum yawma insan yuhni su ko defee mooy buur mooy buur ba nga xamni ni mooy fay kon jëf yu bax ak jëf yu bon ko def lu bax mu dugal la aljana ko def lu bon bu ko neexee mu dugal la aljana bu ko neexee mu dugal la sawara moo xam lu ko ci neex mu fay la ko sa kon mi ngi noonu iyaaka yow kase yow kase kase nag naabudu dañuy jaamu kaaf gi xarfu xitaaf la xitaab la mooy waxanteeg borom bi tabaaraka taala nga ne ko iyaaka yow kase naabudu dañuy jaamu wa iyyaka yow kase nag nastainu la ñuy dimbalikoo la ñuy dimbalikoo eh, am nañu koy firee noonu wante am nañu koy firee iyyaka nga bu bo nekk iyyaka na'budu boobu day dis day dis bopp ci waxin ndax daa am na ci aju ci ay maana boo xam ni man ci war xëy na maanaa booba ñu bëri ñu ko ba tax am na ñu koy firee ni iyaaka yow kase naxbudu yaayoo ak jaamu yaayoo ak jaamu wa iyaaka yow kase na sax ni yaayoo sàkko ndimbal yaayoo sàkko ndimbal yaayoo ndimbal ndimbali ko kon euh, muy noonu iyaaka kon na euh, yow iyaaka naxbudu naxbudu nag dafa boole xawfu ak rajaa dafa boole xawfu ak raja na saxinu nag mooy dafa day ambaale topp ak topp ay ndigalam bàyyi ay terem loolu làmboo mooy topp ay ndigalam bàyyi terem kon daal bu fekkee da nga yow kase lan kon moo tax euh, boo xoolee lim làmboo ci maanaam moo tax buy julli buy julli rek wax ko sa juróom ji lépp nga wax ko te bëri nañu koy wax nag te duñ ko jëfee ñi ngay wax naan ñëw dong la ñuy jaamu te fekk na nga jaamu leneen ndax lépp loo nekk rek ba nga xam ne julli jot na te bàyyi woo ko moo xam lu mën a doon te amul ngant xamal loolu la kon booba loolu ngay jaamu ci waxtu woo loolu loolu mooy sa loolu loolu mooy moom ngay jaamu loolu moo la gën a ñaar moo la gën jam ya, di jam kan, jaam ya, ya, kan? nak nag man ngay nit manay manay mën nay jaamal leen xam kon ñu mat bàyyi xel bax di ko wax ba te do doo ko jefe di wax yow yalla yow lay jaamam ba pare nek fi ko bolal leneen te do bayna na muy bokkaale yàlla ak lenen wal ngay wani yow dong ya ga nastain yow dong la dimbali ko eh, ba pare bo jaxé di wo di wo di woo kaneen do ñaan yalla do ñaan da ngay dem ci ay mama nak wala nga dem ci sa mbokk naan ko a sàkk ci ci yow la yow la yaakaar dimbali ma kat nangam nangam kon bàyyi fa yàlla waaw tamit wax joxam boo ko waxee tamit nga koy wax waaye waaye nekkul loo xam jëfandikoo la kon yooyu mën nañ bàyyi xel baax a baax kon daal dañu koy pas-pas bi nañ koy nañ koy kii loolu moo tax nag ñu koy ñu koy bu ñuy tari rek ñu ko ñu di ko wax di ko fàttali ko baax a baax di fàttali ko ihdina jubal ñu ihdina gindi ñu kon ñu xam ni kon borom bi tabaaraka taala moom rek kum jubal nga jub waaye kum réer nga réer muy nag kon yàlla ñu boole ci ñi nga xamante ni ñoo ngi jubal siraata nga teg ñu ci aw yoon almustaxima way aji jub kon nag ñu nag ñu nag ñu nag ñu jubal ca yoon wa xamante ni moo jub yoon woowu nag mooy yoon wi nga xam moom nga gërëm moo ni boo ko xamul anamta alayhim anamta xéewale nga alayhim ci ñoom mooy yoon wo xamante ni moom nga xéewalee eh, saalixiina yi mooy woy way baax ak rusul yi ak yëpp mooy yent yi ak xutb yi ak euh, borom maqaama yi mooy ñi nga xamante ni yaa leen yëkkati euh, kawe leen màgg ci mbindeef yi ci doomu aadama yi su ko defee ngoon ñu ngi lay ñaan nga boole ñu ca ña nga defal loolee xam ne daal yaa leen tànn ñuy ay tànneef ko defee nañu boole ca ñooña wante nag bu ñu bu ñu boole ci yoon yi nga xamante ni siraatal anamta siraatal lazina anamta alayhim xayri xayril maxdoobi mu ne xayril ña mooy ña nga xamante ni dañoo sànku aw ci weneen uh, aw faneen te ñooñu nag buñ ko waxee mooy siif yi yaxuud ak siif yi nga xam ne ñoom gëmuñu la toppuñu la dañoo sànku waaw yàlla boñ boole ci ñooñu wala daaliin yàlla boñ boole ci ña nga da leen di gindi ba pare réer nangu ñoo gindeeku réer ñooñu nag mooy ñi nga xamante ni ñooy e, nasaraan yi mooy ñi nga xamante ni ñoo lay bokkaale doom su ko defee ñooñu ñooñ la ci jublu mun yàlla ngi musal ci waaw yalla bu ñu boole ci ñoño mu ñu nak amin amin amin yalla nga ñu ñaan wala ñi ngi lay ñaan yalla bal alamin eh, amin kon so defé defee ñu ñaan kon mi ngi nonu fofu la saadu yam yi saadu woo xam wu gat la waaye lambo maana yu bare bare bare ak njëriñ yu bare bare xeyna ma mën nañ cee ay waxtaan waxtaan euh tuddu ko jexal lañ nekk ci ay maana ndax am na beneen pirin euh, moo xam ni Seex Xadim pirin na ko xam naa ni euh, moom it ku ko waxtaanee woon rek te daal di doy su ko defee bu ci nekk rek ci baat yi rek commencé ko ca bismillahi rahmaani ba ca wala daalin su ko defee maana bu na rek ba bu ne muñ ca maana boo xam ne bu yéeme la kon nag ñeem foofu ba beneen yoon ñu nekkoon seen mbokk Oustaz Massamba Tandine wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh